que dañ dañ ciy rus de dañ la naan dama xam diw wala entreprise bii de sama nijaayee ko moom wala dara doomu jàmbur mi ngi nekk à am ay diplôme yu dul jeex di jàkkaarloo papa mag yaayam ci kër gi ki ko ki la embauché yow mënoon ko ni ko ñëwal nga def entretien mais entretien sax amatul entretien léegi dañ koo def maanaam mascarade xam lan la mascarade mooy xam nañu buñ xël ka ñuy jël kaay xamante kaay xamante waa bureau bi mooy entretien kaay nuyu kii kaay nuyu kii xale yi sonn sonn benn jaayante ñaan yàlla pour ñu embauché leen fekk na ka ñuy embauché xam nañu ko ba pare c'est vrai loolu mérite amu fa parce que mérite da ngay jongante da ngay jaayante pour am ko da nga koy xool classe mhm. le premier il travaille bien mhm. ba xëy ñu ne premier mérite dañ la koy jàngal sa kër jox naa la exemple jàngal la ko école mhm. nga jàng bu baax ñu jox la ay cadeau jox bu dee yenn école yi defal la ruban ñu wane élève bi nga doon exemple kii dafa jël paie parce que dafa ko jàng daf ko mérito yeneen élèves yi di jaayante pour egsi le milieu professionnel léegi looy gis bras long mhm. looy gis côté jigéen ñi parfois ñu ne promotion canapé bras long promo bras long mm, ba canapé ba promotion canapé waaw maanaam bras long laay commencé mooy ki nga xamante ni damaa xam Safia père maa ngi ñëw damaa xam Safia mhm. on est d'accord Safia xam diw. Mhm. diw moo koy booleek diw. Mhm. ba mu liggéey fa. Mhm. ñu sax jiix jeex pour xool. Ah. compétence yi. nit ki am ba teg ko fa. mu ne ngir diw mooy mooy damaa xam diw rek. te loolu. koo ko def lor nga ko. mën nga fa teg nag ku am jom mën nañ ne. mën na tombe mu tombee mu dem. mais ki nga xam ne da nga ko fa teg te amul compétence yi ala kulli aal ilaa budda day wàcc. promotion canapé mooy yaa ngi màgg nekk nga jigéen toll nga ci am liggéey amoo liggéey <laughs> Sophie Sophie gis nga promotion canapé boo ko fi suluwaatee père dina fi indi beneen émission dina émission boo xam ne weesu la weesu bokk la bi xamal ko ne parenthèse la balaa mu dañ si waxtaanoon ma ak moom dañ si waxtaanoon ma ak yow da ngay déglu promotion canapé dañ si waxtaanoon man ak yow donc xale bu jigéen bi toog na ci këram xam na ne mënatul voilà parfois sax mooy yor kër gi seet na ba seet amul mu dajeek euh, euh, euh, benn kii Youssou Youssou uh-huh. nekk si d'entreprise xool ko uh-huh. ne ko ah yow day mel nga ni nga war a mel qu'est-ce que tu fais dans la vie dara maa ngi sama kër toog damay ñëwal sama bureau mu ñëw ci bureau ma defal la contrat jànguma jàngu dara dama teel a bàyyi jàng ok <laughs> mën naa la invité non damay joxe exemple. Mm-hmm. c'est comme mën naa la invité suba ñu lekk ñu xool nan laa la mën a aidé. Mm-hmm. génn commencé mm-hmm. lu nekk commencé yaa nga ca bureau ba sa salaire di ko jot. mais sa salaire yi di ko fayee neneen. maanaam kii dafay doon koo xam ne doon koy tëddee. waaw waaw dañ lay fanaan di ko tëddee nii. dañ lay mooy promotion canapé papa. maanaam maanaam di nga jot sa sa sa. mais parenthèse la parenthèse la. waaw waaw exemple. xoolal xoolal instant yi xoolal fi ñu ko jàpp nii baax na nànk rek. kon nànk ñuy xuus nànk rek pas de yuuxu pas de xuloo. kooku ma nga ca place boo xam ne. Mm-hmm. mérito wu ko. Mm-hmm. ndax la ko fa teg coono la. Mm-hmm. ci coono la nar a ne. te la ko fay tegg it coono la. maintenant su ma jëlee exemple yooyu. sama dernier exemple laay joxe mooy ca biir kër wax nga ko léegi père. bëri na góor yu mérité seen jabar jabar yoo xam ne it mérité wuñu seen mhm. jabar di nga nekk góor mhm. ay léegi la wax sax tàbbi naa aas. Mhm. ana jeu la wala lan. tàbbi naa aas tàbbi naa waaw. Mhm. mooy ne yaa ngi xool xale bu jigéen bi. Mhm. xooloo dara loo ndax mën na la yoral soxna wala dara. na rafet na mel na nga dugal ko ci kër. yenn yi tàmbale. nga gis sa musiba parce que moom ci boppam. valoriser wu la. yenn problème yi am. vice versa bu ñu demee ba ci biir dinañ ñëwaat ci euh, ci biir sëy. nan la góor bi ngay mën a taxaw ba ne kii mérito wul jabaram. wala nga xool jëkkër ne kii mérito lenn nag am mooy on est dans une société nag boo xam ne kenn méritowul lenn par jalousie parfois foofu laay waxee waaw nga gis nag ku mérito place am waaw ku jaayante ba egg mais société où n'accepte pas mm. les exploits ak valeur u nit lu waay am da koo am ngir dara lu fu waay toog. da koo lijjanti ah, gis nga fi mu toog. da koo lijjanti donc mm-hmm. comment faire face à une société. c'est pas c'est pas évident. c'est pas évident da koo def ngir am lu mu ca seen. lu mu ca seen waaw bari na de. donnant donnant la rek dëkk bi fi mu toll nii. voilà lu ne loo nooy def lu ne am na loo ci xaar. <laughs> xapis xapis xapis euh, moom laay mujjee moom laay mujjee xam naa jikkoom Youssou ñëwal par rapport ak li ñuy waxtaanee. alors par rapport ak thème bi Safia on parle de méritocratie donc il y a deux mots à l'intérieur on a mérite. onacratie qui est le mhm. forcing mhm. donc euh, on accède à certains postes wala dañuy accéder ci yenn yenn yenn étapes yi suñu àdduna yi forcing moo ñu fa tax a dem alors lu doole indi doolee koy dindi ndax mbir noo ci duggee noonu nga ciy génne moom ala al mhm. nit dina xeex jaayante par force damay jot fii ndax da nga ko fekke ndax la ngay yootu da nga ci jot te li gën a gën a gën a graaw ci forcing ba am benn mbir mooy ne di nga ci dugg ba pare toog doog a xam ni lii ma doon yootu lii moo ci nekk ci biir ndax di nga gis Safia mu toog ci place am xamoo la mu cay jànkonteel ci biir ah, en interne xamoo ko xamoo lu mu ciy dund xamoo la mu ca mën ci wàllu doole boppam ak xelu boppam. Mhm. bokkul sax ak la ko waa kër ga muy liggéey di defal. Mhm. yow ngay yootu place Sofia fexe déjiti place Sofia si place am ba tooge place te doo ko mën a yor na mu ko yore mhm. ñaari fan ñett la ñu ci teg loolee daanu. ñu ne dañu ko liggéey. ndeysaan ba mu ci duggee léegi yàggul kat catu na nañu ko fekk nu ko moom moo yootu loo xamante ne ni mënu ci dara gis nga nit ki bala ngaa xëccu lenn day fekk nga am ci connaissance déjà sànq Safi kii euh, Sophie mu ngi wax euh, ponk bu am solo muy euh, les promotions canapé yi nga xam ne dan ka daan gis mais léegi amatul amatul amatul xam nga li tax amatul mm-hmm. la kilifa yi daan yootu ji mm-hmm. di ko wuti ji di daw guddeeg bëccëg pour am ko pour utal nit place yooyu metteetul léegi mm. soxlaatuñu di ko wuti ji muy déedéet mm. soxlaatu ñu ci ñu ci jox nit salaire pour am ko. nan nan koy amee. am koy am léegi facilement léegi boo génnee ci biti fii sax père ma am nu ma waxee ak yow nga am foo jàpp loolu métteetul léegi la promotion canapé mais li gën a doy waar mooy hmm. euh, tëbal nit euh, maanaam jëlee nit ci fenn teg ko foo xamante ne ni mënu ci dara dama dund expérience bi ci benn société bu ma nekkoon dans la place ñu jël nit par complaisance. Hmm. teg ko ci poste boo xamante ne nii il a fallu que ka fa jóge hmm. di woote kooku di liggéey normalement. wala di yónnee ay fichier tous les jours di ko former pendant six mois six mois te ña fa nekk sos mbir mi nekk ndoom fa ak l'ancien directeur mm. ña nga fa ñu tëb leen ndax xamuñu fa kenn. Mm-hmm. ndax directeur général ba fa nekk xamu leen kañu fa te xam nga lan laam mm-hmm. doon ànd ak waa ji di politique xamu doon def. muy ànd ak moom ci région yi fu ne ñu ànd fa ñu euh, euh, ñu ko tey deux trois mois il devait décrocher l' autre ñu jël ko teg ko ci place kooku. Mm-hmm. mais imagine Sophie une personne boo xamante nii pour nga signer benn papier il faut tout un bureau mobilisé wu ñëw toog naan la defeen nii waxeen nii pour ne sa part d'économie ou bien de finance c'est pas possible jàng nga d'accord mais nekkoo ci sa secteur d'activité Sénégal lu ñuy lu ñuy réere mbir chaque jour waxoon waxtaane woon nañ ko fii les lenteurs administratives loolu moo ko andi. jàng day ànd ak spécialisation. très bien euh, les lenteurs administratives da ngay gis euh, benn père Mbaye Ngoné mu ngi ci télé bi il est bien réputé am na am na am na am na am na nit ñu koy seetaan ñu koy déglu. Mhm. mu xëy un bon jour nitam nitam kooku xëcc ko teg ko ci loo xamante ne nii xamu ci dara père moom pour moom siwtaange mooy àddina bu fa toogee nit na ko fa fekk am nu mu ko dimbalee wala am lu mu ko gindee ci xalaat fekk liggéey bi loolu liggéey da koy mën nga def ko mënuloo ko nga bàyyi ko ko mën mu def ko parce que àddina ku ne ak la nga jàng ku ne ak la suñu borom bi may mais gën a suuf Sénégal développement mu fi ne dañuy gën a suuf parce que mm. bés bu yàlla sàkk nga gis ndaw mm. ko ko ko mm. ñaari at ñett ñu jële ko fa teg fa keneen ku gën a ñu chaque jour ñuy dund loolu chaque jour ñuy dund loolu que ça soit euh, ci ci ci ci ci ci ci côté ci côté public bi que ça soit ci côté privé bi. Mm-hmm. privé bi li gën a graaw mooy xale yi dañuy jógee bitim réew léegi ñu baal ma clash ma kenn mais ñëw indaale ay diplôme fii laa jàngi fële laa jànge et je te dis ah y a des gens qui travaillent ci ay diplôme yoo xamante ne nii mosuñu ko jàng. musuñu koo jàng. complexe day ci réew mi fii. Mm. diplôme yoo xam ne ñu ngi ak moom di ko déposé entreprise yi musuñu jaar ci yooyu formation. Mm. musuñoo def yooyu école. Mm. xamuñu fu ñu jàngee loolu xamuñu fu ñu ko jàngale falsifié nañ seen diplôme ba ñëw ñibbisi si réew mi mm-hmm. wala ci biir réew mi fi ñu juddoo fi yaroo fi màgg fi jàng fi mënuluñu seen bopp dara ñu lijjanti leen diplôme jox leen ko mm-hmm. ñu toogee ci poste yoo xamante ne nii wallaahi wal azim xamuñu ci dara te fekk am nañu poste ba poste ba dañu koy am xamulu tax seen mm-hmm. bàyyi fa ne seen rakki baay li ñu naan mm. népotisme mm. seen papa di waaj a xëcc leen teg leen fa mm. ñu forcé ut diplôme lijjanti ko utal la formation deux ans trois ans inscrire la jotagoo sax génn sa formation jël la teg la fa yaa ngi dawal oto parce que c'est trop facile à avoir yaa nga am am embauchement ba mais liggéey ba du dox ndax lay sa baay boobu du yow mm-hmm. mbir boo ko jàng mënoo ko jëfee si euh, mais thème bi moom euh, am na solo et puis dafa yaatu euh, parce que sànq boo xoolee bi ñuy wax demoon nañ bu dugg ci loo xam ne li yow boo boo boo fekkeewul début bi dangay nga yaakaar ne affaire mbëggeel sax la ñuy wax mm-hmm. bon thème bi aussi moo demee moo demee noonu mm-hmm. euh, dëgg la nag parce que mérite dafa bëri ci ay domaine mm-hmm. parce que am na am na am na domaine bu ne ak lan fay teg pour bu nit amee benn post ñu ne mérite na ko ou pas ça dépend beneen affaire aussi gars yi nañ koy bàyyi xel mooy bon pour man la chance elle ne elle vient pas par hasard quoi des fois on la on la provoque parce que mën nañu wax ne par exemple euh, lii yow pour nga pour nga am ko il faut nga am euh, il faut nga am diplôme yi et tout bon xëy na mën nga mën nga mën nga ëppalee nit benn affaire. Mhm. mais moom mu jug pour lijjanti ji ko. parce que des fois nit day jug pour wuti liggéey euh, envoyé ay CVM pour ne mu dugg fa pour pour ñu jël ko. Mhm. yow nga toog fa lépp être tu es bourré de diplôme mu am poste après nga ne mérito ko alors que yow defoo luy lu tax. yow